muy kilifa goo xam ne gi amul kàddu day li ko waral hmm. dafa def xam nga mi léegi mu def fi fukki at ak benn hmm. le 2 avril 2012 lañ ko tegoon hmm. téeméer bu ne fàttali lu mat juróom-benn fukk juróom jox ko seen kàddu waaye ci kaw ñetti at yu mu wëri Sénégal ay digg yu tooy xip xip yu mu nit ñi ba mu ñëwee daanaka booba ba tey man damay wax ne bu doon téeméer hmm. juróom-ñeent fukk ya lu bon bon dafa def safaan ba te de dëkk ci nag euh, doxalin wi doy kiimaan lool tubarkal rawatina doxalin yi nga xam ni ñi ñu takkal ndombal tànk am lu ñu leen dénk surtout dénk leen alali réew mi hmm. lu ñëpp bokk ni ñu koy saax-saaxi dafa jéggi dayo muy lu ñëpp xam léegi muy lu ñëpp xam bu wiyee amul kaddu muy kilifa goo xam ne gii amul kaddu day dem a dem ba nit ñi ñaan doon moom sax dañuy xaw a dellu gannaaw. moom président Macky Sall moom président parce que kilifa quand day am lu ñuy xaar ci moom. Mm-hmm. dama koy faral di wax Maodo ngi jàng bariwul sama xam-xam wéerul. Mm-hmm. dama naan euh, euh, jikko yu rafet yi nga xam ni euh, l'islam gërëm na ko ci nit. Mm-hmm. ci kilifa rawatina ci kilifa. man amul benn bu ma ci ci benn moom ku ko gis nag nga wax ma ko. ah bon donc. gisuma loolu oustaz oustaz loolu. Euh, ah, kilifa gi wax fort loolu loolu nag loolu nag sëñ bi ëpp na. <laughs> Eh, maa ko wax di. Ah? ku ko xam na ma ko wax. nga ne benn qualité bu ñuy gis ci musulman gërëm ci ah. nit. rawatina ci nekkul ci président Macky Sall. gisuma ko man. est que ku ko xam na ma ko wax. oustaz loolu donc kooku boo ko defee <laughs> ba pare ñëw. réew mi nga war a tëddee njaaxaanay li ñuy xaar ci kilifa tam. Hmm. nga séddale réew mi ñaari cër. Hmm. bii yaag say bokk yaag sa parti lu leen neex def dara lu leen sa fekk lii mooy fi nga xam ni mooy wa ñi amul day fañ dëkk mm. man ca laa bokk mm. damay yomba yomba tëj loo def ñu jàpp la ñii lu leen neex def nga ne euh, yow da nga yomba tëj bon parce que Kumba Moundé ci ko waa kër Kumba Moundé yi laa bokk pour nu mu gaaw parce que mbir yi kiwul <laughs> dama leen di wax rek ne euh. ji nga bu nu nekkoon réew moo xam ne bii li ñu tuddee démocratie lan hmm. ak ay député yu xam seen bopp ak yoon wu jub woo xam ne bii ñoo moom seen bopp hmm. ak xeet woo xam ne wii ñu xeet xeet woo xam ne ñu xam seen bopp lañu ñu xam-xàmmee hmm. doon na metti loolu Maodo parce que ji nga ñi wër président de la li tax ñu baree bari euh, weddi ko. loolu loolu ci la loolu lu mat a wax la. danaa dégg gars yi di rëtta ci loo xam ni li tax ñu bari weddi ko xam nga li li toog naan impunité. c'est-à-dire nit ñoo xam ne lu leen neex def te dara du leen ca fekk. moom ci boppam kilifa gu tool ni président de la nga ni man bu ma foofuloon sama conc teg ko ci dossier yu bari bari ñu bari dinañ dem kaso moo ko wax. Ah, mais léegi est-ce que foofu man mënu ma la fee laaj benn laaj li nga wax ne jikko yu bari yi nga xam ne yow islam gërëm na ko mu ci benn boo xam ne bii gis nga ko ci président Macky Sall pourtant Macky wax nañ ne comme li nga wax léegi nii ku mën a muñale la ku mën a jéggale la parce que yooyu bu ci teguloon lànkam mën nañ leen yóbbu ci kaso bi mm. am nañu wax ne tamit borom xool bu baax la parce que tamit euh, présent léeg mu jëlee la loo xam ne tey mënoon na agir léeg-léeg mu mu jéggale loolu ay jikko yu baax la loolu itam yaakaar naa ne au moins président de la république Macky Sall am na jikko yoo xam ni xëy na l'islam gërëm na ko dans en ce sens là. Maodo ma la xamee. xam naa ne loolu ngay wax. Ah. du loo xalaat da ngaa bëgg laaj lu. <laughs> ah rek waaw waaw la tontu. ah wala waaw l'islam. <laughs> ndi ko waaw li juree jàmm dégg nga eh, gërëm na. <laughs> ñu fab la wóolu la. takkal la jox la sa sunu sunu sunu kàddu gépp ak sunu yaakaar ñu wékkale ko hmm. fab sunu ñaq sunu alal jëpp jox la ay nit di ko saax-saaxee te booba ay nit a nga dee ki xiif hmm. amuñu école amuñu nangam amu lu ñëpp bokk hmm. ña lu mat ñaar walla ñett walla fukk féetiwoo ko bàyyi ña ca des mu ne da leen di baal loola loola mbaax la te damay àggale ba mu ko waxee dafay indi coow mu ni dedet waxuma ñepp si njëli rek la wax parce que man mënuma tej mag ak rak waaw mas nga gis li d'abord est ce que mooy tëj ensuite mag ak rak bu ñuy sa ñuy lolu nag loolu lolu jàpp ku ku ñem loolu loolu kay du. xeyna xeyna pour bëgg jamm stabilité du pays comme kilifa la mu ne bon lii su ko na andi ay ki na fa sama yërmande def ci bon. la aussi man nañ ko man nañ ko nangul njiitu réew mi quand même yërmande je nak day bëgg yaatu. parce que OFNAC gii mu teg hmm. ne nu woon bu ma ñëwee dana xeex ger bu ma newul dana fi jógee danaa ko delloo gannaaw bu baax a baax hmm. ñëw teg OFNAC nit ñi yaakaar lool hmm. teg faas ndaw su am xam-xam su xam boppam su am fullaak fayda ci boppam nan na OFNAC amuñu jot waxee ko fi waaye lo OFNAC ba mu daataan dem fam na lu ma juróom-ñetti dossier teg ko ci table procureur parce yoon dafa ne bu fekkente ni bii am na ku ne kër gee may liggéeyee am na lu fa xew nangam nangam nangam joxe firnde. Hmm. ba mu yónnee fee nii ba loola dëkk hmm. dañuy def ab dossier yóbbu ko teg ko ci table du procureur. Hmm. te ba mu ko ba mu ko daataan ndax teg na fa juróom-ñett yoo xam ni ak ñett yu mu doon yóbbu. keeña wutu ko yóbbu ko muy fukk ak benn tey fanweer ak juróom. ci dossier ñoo xam dañ leen duut baaraam bu méttee méttee métti ñanga ñangay ña ngay nelaw ca table procureur kenn laalu ca benn te gis nga Maodo li ma ci xam rapport am ngi rapport yoo xam da ngay ñu naan inspection générale d'État nee na mi ngi laaj nañu topp Maodo naa wax Mody na ñu topp Mody Niang parce que jàpp nañ ni euh, luubal na ci fii mu nekk lu mat fa fukki milliards wax ko ci ma sàmba wax ko ci ma dem xam nga inspection du ñu caaxaan loola la fa nekk ci table pour pour président bi kenn xamul nu mu toll. yow pour yow loolu nga tudd impunité. ba mu ñëwee ba tey yaa fi mis ku fi kii ku dul Khalifa Sall. kan la fi jàpp te dama ne li ñu toppi Khalifa xaw ma def na xaw ma defut waaye même bu defee li mu def man dama naan dama koy yemaleeg ganaar am na ñu def lu toll ni ñey di fukk ay fukk fukk yu ko wër mu teg ci baaram te waxu ci dara. maanaam warta yam ci eh, ci Khalifa Sall. xam naa kilifa gi foofu da nga may may rek comprendre naa comprendre naa foofu da ngeen may may rek à 11h27 minutes ma fàttali mbokki auditeurs yeeg.